Onde que eu te vi igual, não tinha tey nag fi ñuy dooree du fenn fudul ba tey ci sorti ki nga xamante ne muy son excellence président Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi mu génnee nag boobu léegi mu am ay polémique yoo xamante ne ñii ñu ngi wax ci vestimentaire vestimentaire am ñii ñu ngi wax ci ni muy waxee ñii ñu ngi wax ci ni muy taxawee eh, ginnaaw loolu nag ñu am koo xamante ne si ñoom la bokk ñu daal di koy lacce mu daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko si ñi nga xamante ne ñoo wër ki nga xamante ne mooy suñu euh, nouveau président di Bassirou Diomaye Faye ñu dem déglu vidéo bi ñëwaat. allo discours bi noko jangate discours bi foog nak ñom tamit ñu xamni ne léegi président de la république la ñor li ñu doon bind ci seen communiqué ñu bayyi diko ko bindal comme discours parce que discours bi def na lu bare bare bare wax deug yalla on a xamnañ ni nak jomay du bet sen nek musul nek nak orateur par exemple dimension Ousmane Sonko wala dimension yenen politiciens yi. mais aussi bien sur le pont que la forme def na bu baakha baakha baax xamna bon dañ ko ko meuna muñali ndax mi ngi soog a tàmbali c'est son premier discours en tant que président de la République mais xam nga buñ ci bindee on va abréger les souffrances des Sénégalais surtout les jeunes et les femmes loolu loolu du tubaab bi dara loolu du abréger souffrance mooy koo xamante ni da doon sukuraat nga jekkali ko mu dee te moom bëggul woon a wax loolu ñi ko ko bindal li ñu bëgg a wax mooy maanaam mhm. danañ seen i coono dinañu ko jeexal mhm. xeet yu mel noonu ci euh, fond bi ci forme bi euh, lu mel ni par exemple ni mu rendre discours bi des na bu baax a baax a baax ndax ñi ko tàccu dañ koo dimbali aw ko tàccu ko waaye discours politique dafa am noo xamante ne nii noonu lañ koy génnee déclamé wu ko noonu hésitation yi bëri na taxaw taxaw yi bëri na léegi nag bu fekkee dugg nañ ci fond bi euh, fond bi am na richesse parce que mën ñoo xam ne fi mu ne nii déjà que ni

koo xamante ne dafay présentable mu nekk koo xamante ne bu waxee àdduna bëgg ko déglu il faut ñun ñëpp ñu boole suñu loxo surtout ñi nga xamante ne ñoo ko gën a jege surtout ñi nga xamante ne ñoo am accès ci moom ils ont beaucoup de choses à faire ci li nga xamante ne mooy président Diomaye Faye d'abord ci vestimentaire am il faut ñu xoolaat ko discours yi il faut ñuy bàyyi di jaawale discours président ak discours koo xamante ne c'est un militant c'est un chef de parti c'est un président de la République donc yaakaar naa du xaste du dara mais dafa nekk loo xamante ne lu nous ñu war a mën la parce que c'est notre image nous sénégalais comme ma ànd ak Diomaye que ma ñàkk ànd ak c'est mon président comme ma yàgg koo xas c'est mon président comme ma yàgg wax ci moom c'est mon président c'est le président de ki nga xamante ne moom c'est ça c'est le président de toutes les sénégalais que mu nekk sénégalais bu Europe mu nekk sénégalais bu Sénégal nekk sénégalais bu Mauritanie c'est notre président quoi qu'on puisse dire donc image am daf ñuy soxal li muy wax daf ñuy soxal parce que les médias sont là pour bu defee fayit ñu wax pour bu defee lu mu wax si c'est à saluer dañ koy wax parce que def na acte boo xamante président Macky Sall waxoon na du ko def mom mu ñew mu def ko jomay ñew tey defuko parce que dafa ne une président un président autant pour moi warul am parti tay mom démissionné ci parti Pastef bokkatul ci Pastef lalewul ak Pastef c'est le chef de l'État le chef euh, suprême des armées c'est la père de la nation donc mu nek natt boo xamante c'est à saluer te dañ koy wax on est là pour dire ses faillites on est là pour dire ses bienfaits ci ci respect nak parce que mom moy suñu président yalla suñu bour dañ ko respecter. jox ko ciir donc nak ki nga xamantene tan nako ne ki mo leen war jité ci nguuram la ko ci nguuram la ko jox ko donc dañ koy respecter. li ci des nak du du du du lu ce sont des détails mais image am il faut ñu souligner ko encore une fois et il faut ñu reconnaître ni que nekkatul ko xamantene militant la nekkatul Jomaay Fay bi nekkoon ci Pastef c'est le chef suprême des armées il faut ñu xolaat ay mbiram